dafa am benn projet biñ fi sumboon am na juróomi at projet bi nag di ju euh, jëmal ko ci bàjjen gox yi maanaam seen activité seen yëngu-yëngu bàjjen ñu boole si activité génératrice de revenu activité génératrice de revenu boobu nag fii ci poste Assainies Parcelles Unité 4 ñoom dañoo tijji boutique di jaay ay dund maanaam ceeb liñ suukar ñu koy jaayante seen biir ba nga xamante ne du boutique boo xam ne day tijjeeku saa su ne su weer bi dee lay tijjeeku su tijjeekoo ba noppi ñu jaayante seen biir ñu ko ñu continuer seen yëngu bàjjen loolu moo tax tey projet bi CRD yi moo ko financé ànd ak ak dev euh, am na juróomi at tey nag projet bi dafa jeex xam nga projet moom day dund màgg mu jeex tey nag si jeexantal bi lañ toll loolu moo tax ñu woon fii nemmeeku leen jaajëfal leen ndax nit sooy ànd ak moom su yëf jeexee itam dafay am nooy tàqalikook moom. ba ñuy tabaxee projet bi gis nañ nañu bàjjen gox yi def nañu liggéey bu am solo ci biir euh, askan wi ci poste de santé yi nga xam ne foofu la ñu doon liggéey ndaxte bañ ko liggéeyee ba pare dañoo gis que ni lu gën a bëri ci euh, jigéen ñi gën nañu di mën a fréquenter euh, nu ñu koy waxee ci poste de santé yi pour def seen visite prénatale.

lii lañ fi taataan léegi nag motivation bàjjen gox xëy na bii yoon la boo xam ne suñ siy taxawee bàjjen yi dañ ci mën gës seen bopp si seen yëngu-yëngu. am na yu fi amoon am son excellence le chef d'état jox na euh, président national bàjjen gox nommé na ko au conseil collectivité locale euh, jox na leen ay billets MAC am na 14 billets MAC yi mu joxe woon. 2019 tam joxewaat na 14 billets MAC jox acteur communautaire yi 7 billets MAC gis nañ am na ay mairie yoo xam ne ni ñoom dañuy seet bàjjen bu gën a méritante

pour mu mën a dem nag il faut ñu jàppale bàjjen yëpp ndax bu ñu jàppalee yenn bàjjen te jàppale wuñ ñi ci des day mel ni jàppale wuñ kenn ñun suñu bëgg-bëgg mooy lii mu nekk loo xam ne day law ba bàjjen yëpp gis ci seen bopp ndax nag bàjjen yëpp a sonn waaw xam nga dëkk ci gox ñu wóolu la ba di la wax loo xam ne sax dootul wérgu yaram waaye seen problème mu biir kër la kon ñun askan wi wóolu nañ ñu ba pare li ci des rek mooy ñu gën a jàppanteeg ñoom gën a ubbeeku ñun ñoom ñu gën a ubbil ñu seen i bunt xam ñun ci jàppale leen rek moo tax ñu jóg